tëj mi booy bi koo xam ne dañoo dof la kii nag moom vraiment am si sax xanaa Moussa Sow fi Moussa Sow xanaa ñëwul Moussa Sow ñëw na waaw mais lu koy teg ci maam nañ ci seen dugal. bëgg may kii mu football lu baax. yow itam amul maam loolu. maam yow baax ah moom itam. maam biram na jéem a. li muy def nii kenn ko xam. naar yi këfati këfati nañ bal. mooy dañoo gaaw. xool xool kéema comme mot rek day tëb. xool xool xool jéego yi baax lay def di. ay yow. waaw waaw waaw waaw kay waay góor góor waaw góor ba. góor bi très bien. xool bi mu génnee tànk face à face numéro 7 bi doomu génn assuré. waaw waaw ba coupe d'Afrique bi jeex. ndeysaan mooy kii dëkk Tëngéej ñu tuddati. Kaaro yàlla wax la. Kaaro yàlla nee leen man dégg lii sax bu ndaw. kaar bi kañ ko ah dama ñëw dama ñëw. booy si kenn may ngir yàlla ko bëri traité dimbale ñu kaar ñu dimbale ñu kaar ba final saa yoo yore kaar ñu yem kaar ba final. bi yemoon sax mu neex. ah yéen a xaadimu rasuul mosu ko ñoo mostu suñuy pàcc ba suñuy. ñaar ñaar ñaar ay sarax pourtant ko bi day ñëw bu ñu génnee ay sarax bi ay commencé ci ngeen du commencé ci yii la ngeen Sénégal benn match ñu commencé nee ngay def gars yi commencé. Samba Ndom li wax dëgg la de. Samba yi dëgg la ma dégg Samba yi bu dégg sa laaj sa kër laa bu may dégg sa gémmiñ fu baax bi dama koy bu kat. damay bu kat Samba eh sama sang bi. mais bi de ñëw de. nice nice la waaju baax. waaw ñun ñaar ñëpp ñu ngi yaa ngi tey Sénégal pare bu nekk kay. ñu ngi am rek wallaay. maa ngi leen di nuyu ah, ah, ah. eh, di leen gërëm. wallaay ñu ngi lay sant baax a baax. kontaan nañu ci marché bi. alhamdulilah wallaay ñun ñëpp wallaay nga lay sant. yaa ngi yàlla dimbali ñu am beneen victoire. amiin yaa ngi amiin bu catu sa waay. waaw ndax rek. man noonu doon man noonu maa ngi dëkk Kolda. li ma gisoon yàlla def ma woon. marché bi. waaw. mu woon ma ñu gagné. sa waay. ay sëñ bi. waaye yàlla dafa ma xamal ni ma. ah. sunu bëggee jël ko. waaw yéen itam. foog ñu foog. waaye kan la kàttan day mos ci poule ñoom. faral si ko mais bu matale bu matale ci waa. saa yi nga ne la yow yaa ko daal dimbali ñu rek nag. loola. moo ko ñu daal walaay. yaa ngi may dégg. waaw maa la dégg. waaye yàlla dafa dafa ma woon ne il faut que ñu def ay sara. sara yow yëpp yàlla yem nañu yàlla yëpp boo xam ne. waaw waaw. naag yooyu du ñu mën a jël coupe bi. waaye kon dañ ko jël. waaw. am waay kon c'est waay man waay. sama kër yi day boor yaa. fii la ñuy def fii ñu def du duur. dañuy duur naan ko daal la nekk. waaw da ngeen ñu may jàmm da ngeen ñu fàtt ngeen nii. Ah. commencé ci ngeen. kenn xamul lii lan la. Sénégal bu gañee fi mu ne nii. waaw télé yëpp kenn commencé na. ku nekk góor di dajale. waaw wallaay maa ngi lay dégg. man la Selbé Ndom. ñan. Selbé Ndom. lan waxoon naa ni. waaye nag Sénégal day gagné. barki laa ilaa. ma déglu ma barki laa ilaa. li yàgg nañ ko dégg ci yow dewen naa wax nga fu ne dara du am. waaw waaye wow kii yow ñaayis xam ma waa ji baax déglu ma. xam nga man. dafa am ñu may jéem a xeex waaye mënuñu maa xeex. waaye nga mel ni ñoom ñoom ñoom waaw waaye jëmale ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom na ngeen tëj seen lammeñ ci lion Afrique du Sud. ban lañ ba mas yi jeex. sànq non non kaaro yàlla. ah mais bu ñu génn dox dafa tey. waaw bu xol bi day sedd rek mu yuuxu. c' est que loolu la de. mais dañ koy dañ koy yóbbu màkk denc ko foofu. Ah, ba affaire bi jeex Youssou Ndour nag mënoon jël conseil vraiment ah, dama waaye. waaw vraiment vraiment gars yi vraiment yan maa ngi tuuti quoi. yan maa ko dama waaye. bàyyi ñeew nag ñu ah. fubal rek nag. allo kon. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bokkal la nice. waaw maa ngi lay dégg maa ko waaj baax man la xaar mbay ma jaaga. yo maire. ñoom Modou ñooy dem di. waay naaj jërëm ñooy jagaal. maa ñooy lëkkaloo ñu ñooy faral di yàlla. waaye yéen itam. waaw mais maire bi moom lii ah. lan la. waaw maire bi jëlee ko yóbbu ko ci benn ruq. dëkk bi benn bande rek boo ko affaire yi jeex. waaye ñun ñoo war a fexe ñu gën kidnap. ah vraiment da ngeen wax waaw maire bi récupéré maire bi. waaw dëgg moo ko Youssou Ndour yëpp. waaw Youssou Ndour moo ko Youssou Ndour ngir yàlla may leen. Youssou Ndour lan may waaw ak Amath Fane. Amath Fane kooku fay baram yaakaar naa ne leen xaaral ma profité ci bii. wax nga dëgg dooru tëwee. wax nga dëgg clip bi nag fan yi télé yi moom song nañ ko. song nañ ko koo wax. waaw kii national. drapeau national rek Sénégal dañuy wax naan waaye eh, ñoo jël coupe bi. waaw bu ñu dóoree ñaan xamoon nañ ko. waaw ñoo koy wax ni. loolu day duul. duul yi ca nekk waxoon dañuy jël coupe. waaw bu ñu jël ñaan xamoon nañ. waaw gis nga sëriñ si ndaw si. waaw am na ñoo xam ne dañuy tëdd bu guddi lekk ba suur. waaw naan ba na tatt jaaxaan. yeewu suba teel. naan bi naan marché bi di ñëw gàttal naa. waaw du duul. far ñu ñus ñu doo sel. waaw du fi jeex. loolu loolu yéen ñaar yaa ñaata yoon la ñu duul ñaata leen affaire football duul. waaye nag bàyyi yooyu defee lu leen defee lu leen defee lu leen waaye ni ngeen def fa ñaaw waay lu leen yàlla eh dama leen yàlla da bàyyi ko leen sangam waaw jëlee sa sangam du wala day na jël na ku jël na fii bu kenn génne dara bu kenn génne tous bu kenn génne dara bàyyi booy seen jom bàyyi booy seen jom ngeen teg loxo bi ci loxo ya voilà jàmm supporté rek waaw te tey suñu bii waaw boo téye bii bii du bii dugg waaye boo ko bii bii bii de bii tëdd bu sa sol dimbali noonu la waaw waaw ma ngay sonati tey supporté sa xol seetati dëgg nag dafa rëy allo allo waaw asalaamaaleykum aleykum salaam waaw kooku waa ji baax am na sens. waay waay waay. ok man la El Hadj Diouf El Hadj Ousseynou eh, Diouf. Eh, eh, yow. waay waay dafa lu ma bëgg a wax quoi lu ma bëgg a wax mooy que ne. Hmm. classement bi mën naa ko def quoi. Hmm. yaa ngi dégg classement bi mën naa ko wax mën naa ko mën naa ko soufflé. dëgg ah yaa ko soufflé d'accord waaw parce que man dama xarañ xoolal. man wax naa ne man dama leen wax ne ni su public suñu bëggee ma ma. Sénégal jël coupe bi. waaw nan ma jox sama gëdd. Ah, kii grand nan ma jox sama gëdd la. Ah, grand da ngay jël crédit quoi bu ah, dee yooyu affaire crédit. non jàppale ñu grand. xoolal dëgg lu ma wax la nag xam nga yow da ngay jaay réew mais man kala ndax moom man maa la gënal. non Diouf boo saaga yee. <laughs> waay waaw Diouf nag mu ñu naan bala. waaw mais dama may déglu dama may déglu parce que dama jël suma crédit. dama jël suma crédit dama may déglu. dañ ko am problème. man maa doon doon réew de. waaye waaye dëgg moom. loolu moom dëgg moom dara nag yaa jaxla sangara. yaa jaxla sangara. waaye Sénégal jël dina ko bëri. ok mais man maa ko def. ah man maa ko def sant leen woo quoi. man maa ko def bul wax la ni loolu. dama dama ko def bu tënk ma liggéey. waaye ay woote di wax sa soxla. yaa ngi dégg. waay ñu lay jéem a gololoo. waaw liggéey bi mu gololoo gololoo quoi. yaa ngi dégg. Sénégal dëgg la sa waay dëgg moo ko lan quoi. fi dëgg la. monsieur Merde. ah monsieur Merde. loolu ci la ma gis. merci merci grand. Sampañ da ngay sànq. merci Sampañ dëgg la a wax da nga koy wax. li nga koy wax ko wax ko wallaahi. foog El Hadj li mu def rafet na moom itam trop. Aliou Cissé dem gañe ma sax man maa ko suuf. maanaam Sénégal yi mel noonu. El Hadj Diouf moo bëgg lu El Hadj Diouf moo bëgg Cissé moom. trop moom moom Cissé lu ko bëgg rek. moo bëgg fa ko Cissé jàmm lu koy bëgg a jël. salaale. waaw jig naa leen wala jiguma leen. waaye jàpp nañu waay ci wàllu woowu waay. ci jig leen dimbali leen dimbali leen ma parce que femme ñu doon wax ne du ma leen jig. waaw léegi est ce que jig naa leen wala jiguma leen. Euh, ok. ah xam nga yow jig daaw. non jarul. damaa laaj daaw tare la rek tare. jarul ay wax si suuf foo xam mu leer jig naa leen wala jiguma leen xale bi def buzz man la kiwin. ay kiwin nag mbaa joo la ngay def buzz. yee mbaa joo toj dëkk bi. mbaa joo la mbaa joo la buzz. mbaa joo la buzz. mbaa joo la sama morom. mbaa joo la sama morom. laa ilaaha illallaah. Mbacke bi wéyoo ko. su ma la fee def rek. Mbacke bi sama waaw Mbacke daf la fi doon def daf la fi doon def de. mooy fi loo wóyul. waaw kon moo la bës. billaah yow dama bës yow dama bës yow. yow mu ngi yow mu tànn ak ñebe daf leen bës xam nga yow xanaa fay nekk di xot ay seen dara waaw Mbacke bi du ko suñu teg. waaw loolu gën a dee ko laa yow. waaw kay merci jërëjëf merci jërëjëf jiwoon sax léegi. merci jërëjëf jiwoon jëgaale woon jiwoon sax waaye kii bi amul jëma démba ah. waaw ci day moromam man li mu fay da ko waay yow maa jëloon yaa xam waay du moromam moo la gën a aay doo dara moo la gën a aay dine rien donc lig së waay yow kenn dama fan bis man da waaye man bi ñëw nañu gars yi may nag gars yi supporté bi mu gën a dëgër nag waaw nañu supporté rek man bi di ñëw loolu fu ñu di mel ah, waaw na tëj bi rek waaw bii moom bu ñu ko leen tëj bi ngir yàlla may leen tëj bi waaw bu ngeen tëjee bii bii dugg waaye bu ngeen ibbee bii leen bii. ngir yàlla te bii gémmiñ ngir yàlla. ah yàlla sant lool. dafa war a neex nag. waaye man Viviane. man Simon. man man du Dieng Diakko. Jumba Xaw from the brains. maa ngi seetaan. maa ngi seetaan. maa ngi seetaan. telesenegal.com ak telesenegal.com xibaar dootuma ump te kenn dootuma ko nettali. <laughs>